dafa ma xamal ne ma yéen macha allah li leen seen commune macha allah ci li ngeen am kon yéen bokk ngeen ci li ñu jox ci li li nga xam te ne moom la ministre bi joxe ma ñaawlu ko ma ñaawlu ko parce que li nga xam ne ne bi moo ko joxe ñëpp ci bokk lu ñëpp bokk nag ku ci nekk da nga war a jël sa ku nekk bu jël sawal wàll yaa xam keneen koo xam ne da lay dimbali mu dimbali la ñun bu fekkee ne ñun yàlla dimbali nañu monsieur le maire jagleel nañu matériel matériel bi ñu jagleel ñu defal ko expression de besoin ñu laajee ne ko monsieur le maire defal ñu lii nañ indi lii monsieur le maire indi na ñoom war nañ indi li ci des su ko defee ñun ñu matal mais bu fekkee ne monsieur le maire dafa indi ñoom man manquement manquement day am parce que dañu waxan trois masques par élève et par enseignant loolu ministre bi waxan bu fekkente ne nag euh, monsieur le maire joxe na deux masques par enseignant et par élève ñuy xaar ci une part venant donc de l'IEF indiwul loolu ah suñu xel dafay ñaaw am naqar man nañu xamné ne la parce que dañu né ñun euh am nañu kon duñu joxat té te ñu am mat luñu té ci ñak man mat gi ci ñom la parce que ñoo maire joxé li ñu indi li kon ñom waxan lool maire ni maire respecté engagement ñoo aussi war nañu respecté seen engagement kon man mbété la am ci mbir mi. wa ñoo ngi jaajeufal ñep euh, di nuyu les acteurs de l'éducation di len euh, jaajeufal ci taxaway bi nga xamné taxaw nañ ko pour def ouverture des classes.

mboolem 59 classes yo. en relation avec brigade d'hygiène bu Mbour ñoo jënd produit bi mairie bi moo jënd produit bi jox ko brigade d'hygiène nous désinfecter les bu yàgg ci semaine bi passé lañ def loolu tey nag ñu waroon les directeurs d'école les principaux des CM ak les proviseurs de lycée même ba ci école privée yi nga xam ne dañoo war a ubbi boole leen leen ci dotation bi dotation comme nous état bi demandé demandé ko communes nous ñu ne ñun duñ ci kenn duñ ci ñu jënd matériel matériels xamné bi valeur bi 10 millions de francs CFA nga xamné 10 000 masques la 59 euh, lavoirs, euh, ay carton gel yu bari carton madar carton eau de javel ak ay lavoir 59 lavoirs pour 59 établissements. pour que véritablement les lepp li nga pour jox personnel enseignant pour pour protéger

may remercier partenaires yëpp yi nga xam ne jàppale nañ commune bi ci liggéey boobu ki ma cee jiital mooy regroupement général des sénégalais du Canada mooy association sénégalais yi nekk Canada nga xam ne ay partenaires commune Malicounda lañ jàppale nañ ñu 2 millions de francs CFA waaye euh, mutuelle de santé bu commune Malicounda tamit te te Diakhaté jiite ko jàppale nañ ñu 1000 masques également Union européenne jàppale nañ ñu 500 masques ak saabu donc mu doon daal ay. vraiment ay jàppale yoo xam ne ñi ñoo ñu permettre tey bagage yi bari na waaye ñëpp ci jàpp pour que véritablement ñu man koo teg ci loxo directeur d'école yi proviseurs yi ak principaux yi